très plaisir de vous retrouver comme euh, tous les matins bienvenue dans l'avant-première de la mi-journée ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di ziare fu ngeen mën a nekk ci réew bitim réew di wettali ko 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale ñëwaat nañu ci seen émission avant-première de la mi remercier bu baax baax l'équipe d'Allo Sénégal Aïcha et compagnie remercier la rédaction qui reviendra aussi à 13h pour d'autres informations moo Bon Justice ngi lay nuyu di la jaar bu fay Adama di jaar di sant bu mm. mm. Albert Adama Fall noo def. sant yàlla bu baax. ok di mbégte encore une fii la ëppee. ah saa euh, fii la ëppee. <laughs> merci beaucoup mu ngi nekk. noppalu. Mm-hmm. di amiin amiin amiin di nuyu ñi nga xam ne mhm. mu ngi noonu suñu gan tey euh, li ma koy tooñee tout le temps nee naa ko yaay suñu chéri ñun ñëpp donc moo tax dafa dafa njaboot dafa njaboot mooy suñu papa mooy suñu frère mooy suñu chéri mooy suñu lépp grand Guissé Pène ku ko dégg xam ne dugg nañ ci monde de la culture grand Guissé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax consultant conseil culturel yaay suñu gan tey ci avant première ñu ngi lay dalal. Euh, ñu war a waxtaane loo xamante ni moom mooy ñun hmm. parce que kooku jàll moom moom moom mooy s ki boppam hmm. donc euh, am nag métti aussi fekk euh, fi sama donc euh, boo xamante ni vraiment hmm. pour toi am aussi plaisir jàkkaarloo ak Albert dëgg la yaa ngi sa biir kër dinaa gisee namoon nañ la waaye géej nañ laa gisee tàmmoon nañ koor gu jot nga ñëw waxtaanal ñu waaye bi la yoon koor gi moom dañ la ko jéggal ndax xam nañ ne ci yi nga jógee noonu ah, gis nañ ne wax dëgg yàlla ku xam euh, le groupe Pape Cheikh xam ni nga mel ak ñoom tout le temps ngeen di nekk ñu jóge ci dëj boobu mu metti lool barki dem moo Ndiaye ki nga xam ne moo di père Baylo Diagne aussi suñu borom def mu jóge fi donc ñu ngi la koy jaale bu baax a baax a baax di ko jaaree grand Omar Pène bu baax a baax a baax la ngeen di dégg muy woy ndaanaan Mbaylo Diagne ma jàppoon ci loxo je pense que ça fait juste dix jours une semaine ou quinze jours bi nga xam ne si la fi si bàyyi ko yàlla na ko suñu borom yërëm te jéggal ko. mu ngi noonu ñu tàmbali li ñu koy defee tous les matins xool li nga xam ne moom la yéen a kaay xëyee tey lay jëlee la une des journaux en ce mardi 23 avril 2024 ñu dem xool le soleil déet ñu samay mbokk lañ déet waay la détresse des producteurs d'oignons de Podor <laughs> nañ ma yónnee soble gi ma jaay ko comme man man maay kaas soble gi. yow heure war nañ maa def nii tamit heure tabaski bi ma jot si nii. Ah. <laughs> Ah, dañoo xam ne damay jàmbat fekk séeréer daa bëgg soble nag séeréer daa bëgg soos man da ah man da mais nag mais nag doyen soble bi war nañ cee wax soble bi day dañ koy defar dañuy produire ba pare mu fi yàq see un problème c'est un problème. dañu jàngal nit ñi nuñ koy toggee parce que bëri na ko togg ci korité bi soble Sénégal mu seey. waaw ñoo ko stockage bi wallay le soleil de loolu la xëyee tey hmm. waa transformation entre autres waaye quand même ñu dellu si waat ci beneen xool ñu xool beneen journal lu mu xëyee hmm, le grand chantier du président jomay rupture systémique dans la gouvernance des affaires publiques ouais, on verra ça c'est Sud Quotidien ñu dem ci beneen ñu xool beneen journal critique retard à l'allumage ouais une remarque ah bon maître Bamba Cissé affine sa toge c'est pour défendre qui cette fois-ci boobu rëcc na ma moom critique boobu rëcc na ma Anna Fall du yaa ne woon samay bët baaxul yow kay lii rek la ca <laughs> non loolu moom dafa kii bu bi ci kaw waa titre bi ah. dafa xaw a kii ci kaw la nekk. ok muy critique ah. La Tribune Washington débloque 260 pour le Sénégal ah bon. <laughs> li may reetaan da xam naa ah, xam ne rek euh, commencé nañ wax un milliard fii la ñuy indi problème nit ñi nag commencé jaxase carte bi. commencé joxate carte gi fekk na fekk na fekk na deux cent soixante milliards yi boo moytuwul ci ay kii la matériel lay doon wala leneen wala yegg seegul la motion de censure de censure la motion de censure ok dépend de bon y a des journaux yoo xam ne nekkul fii ci li ñu ma envoyé c'est un peu loin duma ko mën a gis la tribune ñu dem ci beneen les écoles le département d'état américain enfonce le Sénégal ah bon sur les droits des LGBT. LGBT ah ouais. oui hmm. Abdou Mbow recadre encore le porte-parole du gouvernement moom recadre lu ko woon démb les échos. waaw ah oui bi ñu ma jox du boobu kay bii bu démb bi la. Wolf Quotidien le projet face au diktat des bailleurs ah oui ah oui c'est ça l'État ouais. <laughs> c'est ça l'État discours souverainiste doyen jàppal lool de <laughs> le projet entre <coughs> face au dictat des bailleurs. Mm-hmm. ku lay abal ñu ne ku la abal kii bët fu ko neex ngay xool ñu xool ba xam rek ñu dem ci beneen Walf Quotidien après on va voir l'info l'équilibre de la terreur. Mm-hmm. ça c'est l'Assemblée nationale ah. ok je vois ministre Abdourahmane Diouf Cheikh Tidiane Dièye Guy Marius Sagna député honorable maa leen gis ci suuf ku nekk ak li ngay kii. a lu lu ko métti moom. en tout cas daal dégg naa ko muy wax ne motion de censure bi ça devrait être pour le problème des sénégalais. xaw ma waaw on attend de voir terrain miné waaw ça c'est l'Assemblée nationale. Mm-hmm. premier ministre Diomaye appelle l'Union européenne au secours man j'aimerais quand ñu wax ma loolu lu mu demee noonu Serigne Bassirou Gueye parle waaw ah, il a parlé par rapport à l'OFNAC et autres. Ah, Diomaye qui appelle l'Union européenne au secours boobu tamit ñu wax ci nous allons arme au suicide politique ça c'est déclaration de politique générale dissolution de l'Assemblée nationale entre autres enquête moo ci ñëw ñu dem ci beneen l'As quotidien <laughs> la colonisation à l'inverse ah bon que le début de la fin de l'état de grâce. Mmh. Baratal sollicitation directe à Clédor dañ dem rek Clédor dina jot yeneen. Clédor moom dina jot yeneen day xëy rek di jiñ nit ñi. Sénégal dafa neex nag de da ngay xëy rek ni diw moo def lii moo sàcc j'ai les preuves te doo mës a génne preuve yi nag looloo ma jaaxal. ah baax na daal liñ dem waa ji waxoon ne dina bëri ay kii de ay procès <laughs> ça commence bien ñu dem ci beneen xool boo xam ne le quotidien Diomaye veut.

Non. avec l'Arabie Saoudite c'est ce que dit, c'est par rapport à ce qu'ils ont dit la dernière fois au Conseil des ministres. Mm. Ils vont revoir les contrats et tout autre. On attend les contrats dont celui de Aquaport seront audités. Nee naa leen baatu audité moo mm. Mm, Alors que du leen lu dul saytu rek saytu. ñu leen ci dans euh, pour cent yu Sénégal moo ko moom. man j'aurais bien aimé nag invité Guy Marius Sagna mu ñëw parce que une fois avant ñuy signé avant Sen'Eau di ñëw on avait fait une émission 15 millions de fii ci kër gii ñu kaas wax li ñuy war a wax bëggoon naa nag mu ñëwaat ñu toogaat ñu waxaat ci ba xam depuis lors. Hmm. <laughs> enquête sur ces femmes mariées qui cachent leur statut matrimonial ay la ko fi jaay.

Gakou s'en fout fuyant ah, moom muy doo génn depuis élection bi hmm. um, Sonko devant les juges constitutionnels. Mm-hmm. Euh, c'est par rapport peut-être à le président a <laughs> vive tension entre policiers et chauffeurs de clando ça c'était à Guédiawaye hier. Ah ok ñu dem ci beneen bu dee jeexagul libération les premières arrestations tombent kan lañu arrêté. Euh, ñuy kan la. ñu tey nag ce man kay je parle du gars la photo là c'est qui. Euh, ah, Ousmane Diagne le ministre Ousmane de la justice Ousmane Diagne ministre de la justice ok. dinañ ci dellu si wàllu après aywa jeex na ah gars yi jeex na wala des na ca temps yi bàyyi ngeen sama gars yi de bàyyi ngeen sport de xadi temps yi bàyyi na sport. on parle pas de culture dans les journaux wala bu ñu koy waxee tamit si si si ginnaaw la nekk je sais que daal la ministre moom commencé na di génn di dem ci yenn kii yi pour xool ba xam tey rek am na defe naa activité culturelle si aujourd'hui ou demain à Sorano je pense boo xam ne moo ko war a présider dinaa ko xoolaat léegi après on est en devoir te ñu xam ne culture moom du présider ay cérémonie rek dinañ ci ñëw léegi doyen doyen moom lycée Albert waaye deux journaux deux quand même deux deux questions mm-hmm. c'est les chantiers on a à peu une grande euh, perception des grands projets du chef l'État wax na ko waxaat ko som si wax na ci bon ça c'est le chantier bon il y aura quand même des réformes réformes institutionnelles il aura des réformes des organes comme la FNAC mhm. il aussi euh, bon les priorités ministère qu'il a mis en place. Hmm. Bon, petit chantier aussi, on a la démarche. La démarche qu'il veut être transparent, il veut être euh, quelqu'un qui va lutter contre la corruption, mais surtout, peut-être man li muy retenir ci chantier yi c'est la démarche c'est une démarche de rupture hmm. euh, qui va fonctionner à partir de l'exemple. Hmm. Ça, c'est les grands maintenant en face grand chantier bi il y a deux aussi hein, deux chantiers euh, mmh. président il a sa direction il a sa démarche mais l'assemblée euh, c'est un premier euh, mur mmh. hein, il y a un pouvoir législatif qui est entre les mains de, la majorité euh, comment le premier ministre va cohabiter mmh. parce que l'assemblée bi président la majorité de Bon, mhm. on a euh, une cohabitation à l'inverse que euh, l'Assemblée l'opposition d'un côté premier ministre de la majorité présidentielle comment Sonko va travailler avec cette assemblée mhm. donc ça c'est une question politique espérons qu'il n'y ait pas de motion de censure qu'il y ait plus d'intelligence mm dans la gestion c'est respect mutuel fii ak six mois est-ce que dinañu intelligence pour travailler ensemble dans le respect de, chacun des, des mm politique générale, la loi des finances, ça, ça va être le gros test du président de la République à l'Assemblée. Mm -hmm. Maintenant, l'autre euh, l'autre mur, c'est les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds observent quand même la situation du, pays. tout le monde a soutenu la démocratie, il est élu, euh, tout le monde est content de l'état de la démocratie. Bon, autant ils appuient le renforcement de la démocratie, autant ils ne donnent pas de cutus économique. Mmh. Donc, là, il y aura un gros problème pour le président et, son, son gouvernement. Euh, le FMI dafa am des normes dañu am ñoom seen règle c'est-à-dire mm. après la déclaration de politique générale le président de la République devra avoir un projet Est-ce que c'est le projet PASTEF Est-ce qu'on va le remodeler mmh. euh, Est-ce qu'il aura une autre stratégie Dans tous les cas de figure, quelle que soit l'option, FMI moom dafa am sa politique. Mmh. am na ses règles am na ses normes donc euh, FMI est-ce qu'il y aura un accord bon il y a un brin d'espoir si les Américains c'est eux qui contrôlent le FMI et la Banque mondiale Bon, si les Américains donnent déjà un bon signe en donnant un peu d'argent au Sénégal dans, les, dans certains des projets de partenariat, ça veut dire peut-être que FMI, Banque mondiale, dinañu am accord ak Sénégal. Bon, mais à l'inverse, hein, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a une dette très, très, très élevée. Hein. Notre dette euh, est, le service de la dette est élevé. Euh, économiquement, la tendance elle est bonne mais il y a trop de risques. Mmh. trop de risques économique c'est-à-dire que bon euh, peut-être que du ñu am problème pour payer les salaires. pour mm. fonctionner mmh. l'État mais pour financer les grands projets du chef de l'État là il y aura peut-être peut-être des débats sérieux avec euh, FMI Banque mondiale euh, avec le Club de Paris. donc loolu aussi c' est une difficulté en mm. perspective pour le pour le pour le président de la République et le mm. gouvernement bon beneen mur bi nag est le mur social ça on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner ça dinañu am plan d'urgence c'est vrai que gouvernement bi mu ngi waaj plan d'urgence mais le plan d'urgence est-ce qu'il va impacter dans les six mois à venir mm-hmm. Est-ce que dans six mois, on peut régler le problème de, de l'électricité Ou est-ce que ça va augmenter Est-ce que ça va baisser mmh. L'accès à l'eau bah, mmh. Les problèmes de l'éducation. Donc, je pense que. Nous avons que le, le, gros, gros problème euh, dans les six mois, c'est le social. Mmh. Est-ce que nous avons un plan d'urgence qui aura un impact sur la vie des Sénégalais la moom bon lu nekk suñu kanam rawul bët ko. Mhm, on attend de voir soble bi nag. <laughs> ba soble bi c' est c' un problème soble bi mënuma ko euh, bañ un problème à la fois urgence. Ouais. ça il faut pas laisser pourrir il faut Comme pas même. décourager les producteurs parce que c'est les principaux sacrifiés depuis depuis Abdou Diouf c'est c'est c'est c'est l'oignon c'est euh, la tomate c'est euh, bon toutes nos productions endogènes locales ben souffrent pour les mêmes problèmes c'est-à-dire mmh. que amuñu ils cultivent on a des producteurs dans tous les domaines agricoles ouais. mais amuñu capacité de préservation mmh. amuñu mmh. stockage amuñu ils gèrent pas la filière transport ils gèrent pas le marché mmh. donc ñun on a un problème sérieux que suñu bëggee en tout cas euh, Euh, respecter ñoom euh, président joma et Sonko ça il faut changer de paradigme ça la l' agriculture c'est pomme de terre bi ak oignon bi pour man c'est les repères mm-hmm. mm-hmm. est-ce qu'on est est-ce qu'on capable de gérer ces deux filières pour qu'on ait la souveraineté alimentaire benn ñaareel bi ku ñu mën ko jaay ci bitim réew pour moi c'est le test mm-hmm. où on réussit ce test là moo am n'est-ce on réussit pas bah, on risque d'être dans le même cycle. que euh, les dernières années. on va consommer mm. l'étranger et, je crois que. li li ñuy defar si dëkk bi muy yàqu. non c'est pas normal nous on par exemple euh, l'oignon pomme de terre et mais regarde la Casamance. qui pourrit en Casamance. Mmh. Mmh. c'est la zone de référence euh, la zone agricole de référence. Bah, mm. les Casassés euh, c'est dommage hein, que Sénégal quand am am quelque chose comme euh, Casamance la vallée l'Anambé mmh. tout cas on ne devrait pas être là à dire qu'on n'est pas autosuffisant on n'a pas <laughs> on a faim non honnêtement on a faim où tout est cher donc les, les solutions sont là devant nous on n'a pas à aller chercher ailleurs je pense que pandan des années les gens en on parle encore de campagne agricole on attend de voir ce que ça va donner encore une fois mais yàlla soble beeg yooyu moom nañu xool lu ñu koy defee soble bi daal. soble bi soble bi moom man daal li ñuy béyee ci réew mi soble geeg yooyu noonu nga xam ne day gaaw a yàqu ñuy gas di suul. wax dëgg yàlla il faut régler la stockage quoi. du stockage waaw c'est ça. mais les candidats nous ont parlé d'industrialisation ñoom ñëpp nag. c'est la question du transport pour

transporter. te mu bañ a nekk benn marché d' intérêt national. voilà c'est-à-dire multiplier ça la que daaw def te fekk na donc euh, mi ngi noonu. Hmm. maintenant par rapport aux journaux bon man li ma ci retenir mooy la réalité du pouvoir le pouvoir en place le nouveau pouvoir en place mi ngi hmm. doog a dal sur ce qu'on appelle la réalité du pouvoir. c'est hmm. que euh, ils seront un peu rattrapés par leur déclaration ba ñu nekk opposition démb barki démb. il ne voulait pas de la FMI, du FMI, il ne voulait pas de la Banque mondiale, il ne voulait pas de l'Union européenne. Parce que, mais aujourd'hui, euh, pour nous mener il faut nous dem hmm. Parce que pouvoir nous parce que les gens sont la hmm. Ils ont hérité d'un pays, ils ont proposé des choses aux, aux Sénégalais. Donc les réalités sont là, il faut aller chercher les moyens pour pouvoir réaliser les grands projets et autres. Hmm. donc euh, loolu mooy loolu mooy réew la gestion du pouvoir soo xasee ba ñëw rek toog di nga xam ni pour ma doxal il faut ma dem fii il faut ma dem fii il faut ma dem fii. Mhm. maintenant soo demee fii ak demee fii les gens te demanderont tout le temps de de reprendre de revoir ta copie parce que dafa am politique boo xamante ni moom moo fi nekkoon démb ak barke démb ñu mettre ko en place. parce que mhm. l' état aussi c' est de la continuité. Mhm. waroo ñëw fekk li fi nekk rek nga dindi sànni. da ngay da ngay boole ñaar yi pour ñu mën a xool mu nekk Euh, benn texte bréviaire boo xamante ne moom la état bi war a utiliser pour pouvoir continuer. Mhm. li nga xam ne moo fi nekk bon si on le projet à dans le fond c'est c'est c'est à peu près le plan Sénégal émergent. waaw euh, dans le contenu parce que ils disent presque la même chose maintenant nag c'est dans les articulations que les choses restent donc euh, war na ci mën a am taxawaay bu gën a bu gën a am bi mhm. maintenant ils seront rattrapés par certaines choses parce que doyen wax na sur le social FMI ak Banque mondial dañu doon demande woon à l' état du Sénégal ñu arrêté subvention yi. Mm-hmm. mais arrêté subvention yi dafay dafay demander l' augmentation dafay dafay dafay impliqué directement day laal day grévé quoi prix dañuy yéeg ak nangam mm-hmm. maintenant question boobu daf ko dab mooy la question sociale la baisse des prix des denrées de première nécessité la dindi subvention yi la subvention sur l' électricité jeex na le deux passé. Mm-hmm. lan lay andi. est-ce que ça va pas on va pas tout droit vers l'augmentation de l'électricité est-ce qu'on n'ira pas su nekkee dañoo arrêté subvention yi c'est-à-dire banque mondiale nee milliards yi ñuy def ci subvention nañ ko dindi par rapport aux denrées nañ ko dindi mais loolu pour l'instant Sénégal mënu ko ko def quoi mënuñu ko supporter mënu ko supporter population bi mënul supporter loolu maintenant mooy li may wax rek il faut que le président de la République Bassirou Diomaye Faye soit am fulla ak mooy li président Macky Sall bañoon dafa bañoon arrêté subvention yi il faut que moom it aussi mu bañ arrêté subvention yi pour pouvoir population bi mën a attan njëg yi. Mm-hmm. balaa ñuy régler la question de de de la de l'autosuffisance en alimentaire parce que aussi la question de l'autosuffisance alimentaire moo ñuy permetre ñu mën a dundee lu ñuy béyee. Mm-hmm. donc pour nga xam ne duñu mën a jéggaani les ressources yi nga xam ne moom moo fi nekk donc. Euh, dafay laaj fulla ak fayda ak fermeté fermeté mhm. Mhm. de l'état du pouvoir en place pour pouvoir jàkkaarloog euh, FMI ak banque mondiale ak yooyu maintenant nag loolu moo fi ne par rapport à l'Assemblée nationale <laughs> euh, leur déclaration les rattrape parce que li ñu doon ñaan yàlla mooy avoir une euh, une assemblée boo xamante ni opposition moo fay majoritaire. parce que pour avoir une cohabitation parce que ba ñuy nekk opposition loolu la ñu doon campagne à l' élection législative de 2022. <laughs> maintenant cohabitation bi ñu doon ñaan yàlla ñoom. am na am nañ ko parce que le président de l' assemblée nationale n' est pas du pouvoir en place maintenant le président de la République est intelligent. parce que ba mu rencontré président assemblée nationale bu pare dafa rencontré le parce que euh, mënuñu dem vers une crise institutionnelle moom il ne veut de ça bëgg na lépp loo xamante ni le pouvoir en place mi ngi koy mettre en en exergue rek assemblée jàppale ko ci pour mu mën a dem mm-hmm. parce que les par les gens de la dissolution de l'Assemblée nationale d'ici le mois de septembre moi je dis que nekk ah mënul nekk parce que dañuy préparer loi de finance la loi de finance initiale mm-hmm. donc en octobre mu ñu dem assemblée nationale installer l'assemblée nationale ba pare installer les députés pour ñu mën a dem vers ver euh, le vote de, de de la loi de finance initiale mënul nekk donc dañuy dem dañuy dem ouverture session bi la en octobre la ñuy ubbi session parlementaire bi député yi war a recevoir les les les les ministres au niveau de la, de l'hémicycle pour ñu voter loi bi donc normalement assemblée bi day encourir jusqu'au en 2025 donc mm. il faut que cohabitation bi continuer de am yaa ko day noonu la demee noonu lay demee. ah xaaral ma interroger doyen ci côté boobu ba mënoon ngaa bàyyi ba Philippe Montey ñëw rek ñu dugg ci kii bi. non non non ah, mënul lay demee mënul nekk. parce que mënuñu la. Ah, à partir de de septembre c'est possible. waaw loolu la ñu c'est parce que mooy deux ans yi mais dama la ne mënul nekk c'est-à-dire dans la pratique mënul nekk xam nga tax ma ne la nekk. dans la pratique c'est pas possible. c'est-à-dire au mois d'octobre dañuy ubbi session parlementaire bi. Hmm. loi de finance initiale bi ci lañ koy voté les les ministres vont aller à l'assemblée en en en commission technique et en plénière et ça prend trois mois. donc dina dina am difficulté donc il faut que la cohabitation puisse continuer à exister au niveau de la République mais loolu nag lu muy laaj peut-être mooy une élégance républicaine de la part de l'opposition qui est parlementaire maintenant une élégance républicaine de la part du pouvoir en place ñoom ñu mën a waxtaan jël intérêt supérieur de la nation sénégalaise teg ko ci maintenant nag dafa am des précédents des un passé bu fi nekk par rapport à cette opposition mais pour wax sénégalais yi ne leen opposition bi voté wu ñu loi de finance initiale bi 2024 opposition bi nekk pouvoir nii. Mhm. le pouvoir en place n'avait pas voté la loi de finance initiale. Okay. le pouvoir en place préparé une motion de censure contre le gouvernement. de Macky Sall de mhm. gouvernement le maintenant est-ce que dundee la même chose la même chose naka lay demee. naka lay demee ñoom daal ñoo ko fi njëkkee woon. ñoom ñoo ko njëkkee woon maintenant suñu dundee la même chose naka lay demee. si le gouvernement yoo daal yoo moo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ko doon xeex. waaau aujourd'hui ils sont au pouvoir. ils sont au pouvoir et moo tax nag le président le président de la République qui élu. Mm-hmm. am na taxawaay bu mu war a am vis-à-vis du des groupes parlementaires pour man. dafa war a recevoir les présidents de groupe parlementaire parce que y a trois groupes parlementaires yu am y a le groupe Benno Bokk Yaakaar y groupe Wallu y a le groupe Yewwi Askan Wi mm. na recevoir ñooñu ñu waxtaan ñu waxtaan pour pouvoir sauver pour mu bañ pour ñu éviter la crise institutionnelle bi nga xam ni moom mooy am <laughs> mooy waaj am mm. mooy waaja am bu mu am ñu ko voilà ñu ko ñun tabaski bi lañ talak yooyu taluñu ko euh, gise pen dinaa gisee bu dee am nga loo mën a commenter ci ci ci live du jour la après ñu dugg nag ci suñu thème parce que le son Sonko 1 là il faut ñu wax ci culture bi ñun mooy suñu domaine. man je crois que les gens mm. wax nañu li nga xam ne mooy. Mm. Euh, seul problème la man ñu ngi wax ci euh, euh, des produits périssables là. Mm-hmm. je crois que nécessairement il faut moins mu am sur place déjà des. Mhm. de stockage et de transformation. je crois que mhm. loolu mën na amoindrir carrément les les pertes là parce que aussi neexul. Mhm. comme l'a dit doyen soo demee Casamance mango beeg màgg bi ni mu fa ni mu yàqoo noonu. wallaay mais c'est extrêmement grave. c'est extrêmement grave et puis en en deux mille waaw quand même war ko dépasser bu yàgg. war nañ ko dépassé bu yàgg donc la solution serait ku nekk fa nga nekk di fa liggéey au lieu ñu lay déplacé di la indi ñu jéem a xool naka la ñuy def pour am foofu des usines de transformation ku nekk toog fa nga nekk dundee fa ñëpp mënu ñëw ñëw liggéeyee Ndakaaru Ndakaaru xat na ko doyen Mamadou Sy Albert le gouvernement d'Ousmane Sonko le premier ministre Ousmane la place de la culture en question parce que nag je pense que depuis Amadou tax Mbow on n'a pas eu un ministère bu boole jeunesse culture c'est revenu en 2000, 2024 avec euh, comme j'ai l'habitude de l'appeler Badiane Khady Diène sama ah, Badiane la donc Badiane Khady Diène euh, la ministre donc mu ngi noonu moom moo dajale portefeuille yooyu noonu yëpp est-ce que vous pensez que c'est possible non c'est euh, c'est possible c'est-à-dire que euh, le président Diomaye moom dafa changer euh, paradigme mm -hmm. ça, ça aussi c'est important que nit ñi bàyyi ci xel cest à boole sport culture e jeunesse. mësoon mm-hmm. euh, am c' c'était la vision de Senghor. la vision de Senghor. Euh, bon y ya y deux piliers quand même essentiels sur les politiques publiques c'est la culture c'était le le le, le, mm -hmm. département phare. ok ah euh, le ministère de la culture euh, à l'époque en tout cas de Senghor jusqu'à Abdou culture dafa nekkoon un levier de développement mm -hmm. bah, sport c'est également un, levier de, de développement parce que le sport était présent dans tous les cycles d'enseignement Uh-huh. avec l'USU et autres. Bah, toutes les élites qu'on a formées au niveau culture et sport, c'est à partir de la conception de, de Senghor que, mm -hmm. que le sport c'était un corps sain dans un, euh, un C'est mm-hmm. que l'étude, le sport, la culture, ça, a toujours combiné. Mm -hmm. C'était relié. Mm-hmm. Et même si on les, les, les, grands artistes qu'on a eus euh, sous Senghor, ben c'est des que ce soit les artistes que ce soit les musiciens que ce soit euh, mhm. les intellectuels ils, ils avaient et la culture et le sport et ils, réunissaient toutes les compétences c'était des gens conformés mm-hmm. bon n'importe quel acteur boo jël de à l'époque de Senghor mhm. ça mm-hmm. ils sont dans la culture mais mm-hmm. c'est mhm. des intellectuels c'est des développeurs c'est des c'est des sportifs c'est des sportifs des hommes de culture que, la, culture, c'était pas seulement euh, un domaine, non, c'est le global. Mm C'était ça la vision de, de Senghor, parce que, bon, lu ko doon soutenir mooy que pour moom la culture était le, le support de la civilisation. Mm -hmm. donc pour ñoom sport culture jeunesse ben c'est un même euh, c'est un même département maintenant la. Euh, mhm. je pense la force de de l'époque de Senghor c'était c'était des directions. Mhm. c'est pas des ministères. c'est pas des ministères non c'est des mhm. ministères de souveraineté. Mhm. c'est-à-dire que imagine-toi le, le sport à l'époque bah ça couvrait l'école primaire moyenne secondaire université l'enseignement à à, à, à l'étranger. Euh, culture c'était pareil la jeunesse c'était pareil donc dafa dafa leen dafa doon dooleel euh, ce ce département. maintenant Diomaye est, est venu bon bizarrement c'est lui qui réhabilite cette perception là. mm c'est pas Diouf c'est pas Macky Sall c'est pas. Abdoulaye mm-hmm. c'est pas par hasard. Mm-hmm. parce que ils ont une perception qu'il faut changer de paradigme. Mm la culture va va jouer euh, va jouer un grand rôle. bon soo gisee sax euh, un élément peut-être qui confirme ça mooy que il a créé une direction des affaires religieuses. yóbbu ko palais. mais parce que ils comprennent que la culture dafa embrasser lépp. Mmh. Maintenant, euh, il reste, euh, je crois, bon, la, la question de fond, c'est le contenu qu'ils vont donner. Ah, ah c'est ça. va être le contenu Est-ce que est la ça. culture va être le pivot mhm. Est-ce que c'est la jeunesse Est-ce que c'est le Bon, euh, là, il y a des <laughs> choix politiques qu'il faut faire. Mhm. Que pour moi, euh, en tout cas, si nous bouguons inscrire ministère boobu dans la stratégie du changement de paradigme culture c'est c'est un vecteur d'intégration il mm-hmm. mm-hmm. y a pas il y a pas un meilleur support d'intégration que la culture mm-hmm. bah, si tu prends la jeunesse il y a pas meilleur support le sport il y a pas meilleur support euh, su ñu amee à mon sens euh, une une vision beaucoup plus large Euh, les les les trois directions la suñu leen doolelee ñu jox leen les moyens jox leen les compétences euh, c'est possible parce que euh, honnêtement je le dis clairement c'est-à-dire que les alternances ont tué la culture c'est les alternances qui ont tué la culture il y a pas de mmh. salle de cinéma il y a pas de salle de théâtre il y a pas de livre il y a pas mm. on est devenu on consomme la technologie on n'est plus dans dans dans, <laughs> la culture mais même nos manières alors qu'on de culture on parle de sport ça peut aller ensemble hein mais c'est le contenu comme li nga wax léegi. ah oui c'est le c'est le tourisme peut aller avec comme disait Adama Fall. non si tu comprends le, la culture mais c'est le c'est le c'est le véhicule. c'est tout. ça le sport passe par la culture Sadio Mané pourquoi il est si célèbre à l'Afrique parce qu'il a une culture sénégalaise. et que, et que les gens il faut ñu c'est pas la musique. non c'est ça en fait c'est le c'est le c'est le véhicule soo amul culture mënoo mënoo tu peux pas t'exprimer à l'étranger mm-hmm. c'est ce véhicule la qu'il faut que ñoom il faut qu'il donne un contenu justement à la culture mhm. comme vecteur de développement mm-hmm. parce que jusqu'à présent pour ñun pour ñun euh, bon da ngay caada da ngay caada da ngay caada alors que c'est le vecteur privilégié du développement on parlait tout à l'heure des oignons là bon mais parce que on n'a pas dans, mis dans notre tête la la transformation on n'est pas dans l'industrialisation alors que la culture bah, c'est c'est c'est industriel c'est industriel c'est ça c'est, c'est, il faut aller dans cette direction loolu tax bon c'est vrai que moi j'attends beaucoup quand même euh, le contenu pour xam euh, qu'est-ce qu'ils mettent dedans comment ils vont vendre ça et comment valoriser aussi les hommes de culture les hommes de culture. Euh, ba ba tey jii quel statut ils ont ils ont statut marginal. Mm-hmm. marginal. Ouais. à la limite euh, on les même pas personne n'est scandalisé parce que dans le gouvernement il y a pas un homme de culture. Mm. même, même, la ministre, c'est plus de sport. On, on, on, ah. on, soutient les femmes, c'est vrai. Mais on devrait quand même ouvrir le gouvernement aux hommes de culture, aux hommes de sport, aux hommes de... Hmm. c'est ça, je crois que, en tout cas, pour moi, j'attends beaucoup. Dans l'entendement, on peut dire que la jeunesse, le sport et la culture peuvent aller ensemble. Mais dans, le, dans, le, dans la théorie, c'est possible. Mais pratique, du moins, un problème. parce que vraiment on comptait beaucoup autant sur les associations euh, les ASC on comptait sur les trucs de quartier et autres yoo xam ne ñoom ñoo doon véhiculer beaucoup de messages yoo xam ne dañ ko doon jaarale à travers la culture et tout mais mais, mais je donne l'exemple de <laughs> par en mmh. France euh, le premier ministre de culture de de de, de Mitterrand il n'a pas fait ah la, la fête de la musique internationale là bah, c'est lui <laughs> Parce que c'est un homme de culture qui ouais. avait une, vision. Ouais. Comment on, a, quand il on avait a... quelque chose comme ça, oui. la culture Abdou Aziz Mbaye, il a une fois à la culture. On doit aller vers, vers cette direction la Ça dit quelqu'un... Prendre les hommes de culture, ñu en tout cas ñoom ñoo xam ils connaissent le métier ils savent où ils veulent aller. Hmm. soo leen joxee les moyens politiques dinañ la yóbbu euh, fu sori. déggoo gum euh, nga doyen en attendant Adama Fall di ñëw. non dégg dégg naa ko. Mhm. Euh, il a fait une analyse très pertinente. Mhm. Euh, de paradigme aussi il nga tenir ci contexte bi ak époque bi période bi. Mhm. Euh, je dis merci Senghor. Ouais. d'avoir. c'est la culture. ah oui a. privilégier ce qu'on appelle la culture d'élite. Les mm. élites, mm. c'est les écrivains, c'est les musées, mm-hmm. et Et malheureusement, son suivant, moom il a été confronté à des ajustements structurels. Mm-hmm. à des problèmes de famille, il n'a pas pu. Mmh. Donc, euh, quand Wade évolue, il a eu beaucoup d'infrastructures. Mmh. Beaucoup d'infrastructures au moins les choses de, bouger un peu et de faire comprendre que les hommes de culture étaient pris en compte dans, la, dans les politiques publiques. Mm -hmm. Et euh, rien que pour ça, on dit euh, bravo. Son, son, son mhm. euh, mais vu qu'on dans un contexte. wolof wolof ah waaw gannaaw dañu nekk ci contexte boo xamante ni. alors euh, je crois que les choses ont beaucoup bougé. ndax en dehors de l' aspect culture simplement. dafa am leneen yoo xam ne da ci rax moom mooy les enjeux économiques les enjeux et cetera mm-hmm. dikk dugg ci boobu plus nag maintenant technologie mm-hmm. léegi nag moom am aussi beneen élément boo xamante ni ñu bari euh, bàyyiwuñ ci xel mais moo nar a nekk nag soit un danger ou bien wala benn acquis mm-hmm. moom mooy l'intelligence artificielle ah, ah ça te mu ngi mu ngi dugg ci suñu biir et c'est pourquoi quand on a dit déjà culture donc c'est lourd ndax dafa diis soo xoolee culture rek neuf secteurs la. Euh, soo ko bëggee boolee ak sport bi nga xamante ni soo xoolee sport activité wu dynamique la énergie xale. jeunesse xale. mais culture euh, création la. xalaat ci ngay ci ci ngay dëkk. pour mën a exprimer. jeune ne dis pas que c'est pas possible. Mhm. mais ça va être très compliqué c'est pourquoi ñun euh, malgré qu'on est dans une confusion. dañuy xaar contenu bi nga xamante ni moom la ñuy indi. Mhm. pour ñu jéem a xool ba xam naka la kii parce que vraiment voilà c'est c'est un peu confus. Mhm. ci boppu acteurs culturels. Mhm. ñu ñëwati sport jeunesse et culture donc la position de la culture rek déjà mu ngi nekk. sport <laughs> d'abord parce que <laughs> <laughs> ki ñu ko dénk aussi. Uh-huh. inspectrice des sport la. il faut pas qu'on l'oublie. donc moom son jardin c'est d'abord le sport. d'abord hmm? parce que moom mooy nekk voilà sport jeunesse et culture wàcc. ñu mhm. ni de on un secrétariat d'État. chargé des questions de culture des industries créatives et du patrimoine. Mmh. d'État bi sous tutelle du ministère lay nekk wala secrétaire d'État bi ci sous tutelle PM lay lay nekk wala. Hmm. mu gën a encore. dafa gën gën gën a fulu ci ci ci ñun mais on suppose que ni xëy na peut-être daf il sera adossé au ministère de la culture mais day day am aussi ce qu'on appelle autonomie même. force mm-hmm. parce que voilà. Mm-hmm. ah on mm-hmm. parce que sinon pourquoi. ñëw encore ñu indi génne benn plan encore benn plan de la culture loo ci waat ko présidence moom mooy les questions religieuses. alors que ça fait partie suñu département. donc ñu nekk dans une confusion boo xamante ni mais comme l'a dit doyen quoi que ñoom li tax ñu def ko xëy na peut-être xam nañ ko. Mhm. mais on va essayer d'attendre le contenu. Mhm. une que nag on le contenu parce que euh, culture nit ñi dañu mode yi dañu changer. bu baax sax culture léegi dootul question wu euh, simplement base. Mhm. c'est des intellectuels ñoom ñoo fi rek. et on a vu que ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jiitu ñëpp. Euh, su fekkente ni indi nañ dara ci culture aussi. bariwul ça sana ça n'a ça n'a pas beaucoup changé ça pas beaucoup bougé. Mm-hmm. et que léegi on a besoin ay visionnaires de nouvelle têtes ñoo xamante ni au moins. dinañu mm-hmm. xam le contexte xam les contenus xam ce qui se fait ailleurs. Mm-hmm. <coughs> sinon tu as donc. Euh, comme je dis rek on dans une confusion boo xam ne mais on attend. Mm. on attend parce que comme on dirait parce que nous avons toujours attendu hein depuis. <laughs> ñun dañoo am il faut il faut man sax je pense que gis il faut yéen tamit ngeen ngeen ngeen kiiyaat jàngalaat nit ñi bu baax ba comme doyen l'a dit ñu jàngalaat nit ñi bu baax lan mooy culture exactement. le contenu même de la culture balaa ñuy dem ci ci ci lan lañu. mais parce la culture comme un divers. divertissement divertissement. <laughs> c'est ça le problème la culture c'est la culture c'est urgent comme je dis. Mhm. Euh, du tourisme maa ngi koy wax ak euh, Adama Fall léegi. Mhm. mais celui qui vient au Sénégal c'est pas pour voir des bâtiments. non il est venu voir le comportement. le mhm. mode de vie. les habits. la façon l'hospitalité la teranga et tout cela rentre dans le cadre dafay dugg ci biir culture. loolu nit ñuy seet man su fekkente ne boole woon nañ sax culture ak tourisme. bon xëy na peut-être doon naa gën a. Euh, voilà sama inquiétude. dina amul boole woon nañu ko par an ñaari ministère c'était ça mën nañu boole aussi culture ak communication. oui waaw culture communication par exemple culture sport ak jeunesse on attend duñu yàkkamti pourquoi parce que aussi euh, ñi nga xamante ni ay gan lañu. Mhm. Euh, xëy na peut-être am na nu nu ko gisee. Mhm. ah li si des nag proposition la rek su ñu defee seen proposition ba ñu toog déglu su fekkente ni mën naa dem ñu dem su mënta dem kay ñu woo ñu waxtaan ak ñoom. ne leen mënul dem mais nag bon c'est vrai que ñoom balaa ñuy kaas wala ñuy kii il faut ñu xam lan la lan la la wundu. oui c'est c'est c'est vrai hein, parce que dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l'État peut-être hmm, moo tax ñu ñu tëggee noonu ministère yu bari. Mm-hmm. mais euh, le secrétaire d'État il accompagne le ministre de tutelle. Mm-hmm. il est la tutelle de du ministre mm-hmm. en question mais en charge exclusivement du tourisme de la gestion de, de la patrimoine et et autres. maintenant man problème articulation mooy li ñu doon waxtaan sànq parce que j'ai le projet en face de moi. Mhm. culture ak tourisme la ñu boole woon. Mhm. ci articulation yi dans la dans la vision dans le programme et soo gisee dañ ko lié ñoom ñaar parce que le tourisme. yàlla a le tourisme culturel. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que tu comprends y a le tourisme religieux. Mm-hmm. y a le tourisme euh, balnéaire ak yooyu. donc cest à dañ ko dañ ko dañ ko boole woon dans la dans la vision. dekk mu nekk un grand ensemble. dans le projet du Pastef dans le projet du du Pastef ah. mu nekk un grand ensemble. noonu lañ ko articulé dans le dans le plan Sénégal émergent. Hmm. <laughs> sorewuñu sorewuñu sorewuñu ñu ñu bind programme waaw sorew sorewuñu quoi sorewuñu maintenant c' est dans la pratique peut être lay di lay lay la ñuy wuutale. diversifier ok dañ koy diversifier. Hmm. maintenant lettre de mission bi dina am solo pour acteur culturels yi mën a xam exactement fan lañ jëm. ñu am kay mais li ma jàpp. Hmm. mooy le ministre en personne va gérer la jeunesse et le sport. loolu laa jàpp. la direction va gérer le secrétaire. le secrétaire d'État va gérer les aspects culturels. kon de ñun tumuraanke nañ ñun. les voilà les les aspects culturels parce que dans la vision hein, pour dire vrai ah soo liiree rek tu es séduit. Hmm. soo liiree li ñu li ñu proposé dans le cadre de la de la culture et autres ils ont mis des mécanismes peut-être su nekkee waa ji traduire na ko en réalité ils ont ils, ils vont des mécanismes yoo xamante ni acteurs culturels yi dinañ ci gis seen bopp. Hmm. maintenant le comment mooy problème bi. les cahiers de mission moo ci war a nekk pour ñu mun a xam mooy li nga wax rek il faut ñu xaar mhm. les cahiers de mission mais man euh, tradition républicaine peut-être mooy andi ñuy xaw a am jiixi jaaxa peut-être ci ci ci articulation bi parce que euh, la culture comme ni ko nit ñi jàppee mooy folklore bi ak leneen ak leneen mais dafa am loo xamante ni daf ko engagé mais ci ci biir ils ont pris en charge parce que je ne suis pas là pour les défendre quand même. Mmh. mais ils ont pris en charge beaucoup de questions. Euh, la mise en place l'érection de la et l'érection des des de des des centres culturels régionaux équipés et fonctionnels. Mm-hmm. xam nga loolu c'est une très bonne chose li ngeen doon jooy da ngeen ko doon jooy tout le temps. Mm-hmm. ils vont mettre en place ça maintenant li tax ñuy am peut-être yaakaar mooy les la lettre de mission. buñ suñ suñ ko tegee puisque ñu ngi dressé les lettres de mission ñu ngi koy joxe au niveau des ministère ku nekk war a xam lettre de mission yi lettre de mission yi moom moo ci nekk maintenant le secrétaire d'État en tant que tell du am direction buy dépendre ci moom foofu tamit limite la nar a doon parce que les secrétaires d'État amoon na fi du temps du président Macky Sall par exemple moi j'étais dans un cabinet d'un secrétaire d'État en tant que conseiller technique mais du dépendre ci dara du am direction yi nga xam ne dañuy dépendre directement ci moom parce que direction yi foofu la ñuy liggéey maintenant nag dans le cadre du travail ministre bi mën na ko dénk lu bari pour mu doxal ko mais day elle accompagne le ministre par rapport a à la culture ci affaire boobu maintenant nag nañu taxaw xaar les lettres de mission hmm, pour bañ a dund li acteurs culturels yi doon dënd ci yeneen pouvoir yi parce que au-delà des aspects techniques et autres il les aspects sociaux. Mm-hmm. acteurs culturels yu bëri. dañuy dund loo xamante ni suñu demee retraite lu metti parce que moi j'attendais la mise en place de la caisse de de la caisse de retraite des des acteurs culturels man yaa jàppoon naa ni dans le programme ci dina dinaa ko ci gis mais parce que dangeen ko doon xeex ci combat yi ngeen doon porté. effectivement moo tax quel doit être le comportement du nouveau ministre ou bien du secrétaire d'État man pour man par rapport à ça. Mhm. pour man dafa war a aller dafa war a dem vers des des comme gise qui qui est un acteur culturel reconnu pour ñu mën a mhm. xool naka la ñuy def dans le cadre de la collaboration pour ñu joxe les orientations nécessaires. Mhm. la prise en charge des des acteurs culturels aussi. médical médical un problème. ba léegi c'est un problème. et c'est un problème d'habitude amuñu caisse de précaution bu leen di permettre wala caisse boo xamante ne leen permettre mm-hmm. état bi war lañ ci mën a def des ressources ba ay fonds pour nga xam ne suñu feebaree dinañ mën a dem faju ji normalement pour la prise en charge médicale mm-hmm. maintenant nag loolu dafay laaj ay réformes yoo xamante ni pour ñu def ko il faut ñu boole si les acteurs culturels c'est-à-dire mooy les peintres mm-hmm. les artistes d'art les les les musiciens les animateurs les culturels, animateurs culturels xam nga xam nga culture comme comme doyen qui écrit tout le temps. Mm -hmm. qui a besoin de protéger ses œuvres. naka lañ koy defee parce que nous nous sommes ça mais et ça. maintenant comment nous devons faire. pour le kii maintenant dans les. dans les trucs maintenant comment nous allons faire pour protéger. dans les livres électroniques comment nous allons faire pour protéger les acteurs culturels en général. Mhm. parce que aussi euh, dafa ci am solo. Parce que chacun doit vivre de son art. si, on transcrit les livres sur, les téléphones. Il aussi. Euh... que nit ñi mën ci gis seen bopp. nit ñi mën ci seen bopp. Ah, ah. parce qu'ils prennent du temps pour écrire. les acteurs culturels prennent du temps pour produire. comment les protéger. dafa war a apparaître. Hmm. donc li ngeen doon jooy yëpp yaakaar naa ni fii war nañ ci mun a apporter les corrections nécessaires mais pour loolu am. il hmm. faut qu'on vous implique dans la réflexion. mais c'est c'est c'est vrai qu'il faut qu'ils sont obligés de nous impliquer dans la réflexion parce que nit ki mën na koo gën a xam boppam. Hmm. parce que. loo xam-xam ma dem ba ma dem ba gën naa xam dem. su fekkente ni ñoom ils bi l'habitude c'est-à-dire une aspirine. Mm-hmm. tu as peut-être mal à la tête. Ah alors que moi ah. j'ai ah besoin de pommade. parce que c'est pas c'est pas ouais, des choses yoo xam ne parce que am ce qu'on appelle des priorités yoo xamante ne xëy peut-être mën na euh, régler quelques détails au départ. Mm-hmm. et c'est des combats yoo xamante ne on depuis que le Sénégal a ratifié la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Mm-hmm. muy quoi le statut de l'artiste parce qu'il faut qu'on man lan la Euh, personne libérale laa yore. Mm-hmm. Mm-hmm. l'artiste mm-hmm. mook ambulant bi ak euh, kii ñoo ñoo yem statut fi toll. waaw le statut de l'artiste on en a tellement parlé ba nga xamante ni dem nañ ko ba yóbbu ko et cetera mu des nag maintenant les décrets d'application. Il y a un problème aussi sur la copie privée. cette copie privée aujourd'hui su fekkente ni man dama naan des fois les gouvernants dañu xanaa ils se plaisent à faire souffrir les artistes. parce que loo xamante ni signature de kese la ñoom ñu mën cee féex dans les projections parce que moi je fais partie de la commission copie on a travaillé sur les projections qui pouvaient nous rapporter au moins entre 4 et 5 milliards par an quand on sait que la SODAV actuelle mënul distribuer plus de 1 milliard mmh. par an mmh. malgré tout ñu ngi ciy contenté wu mais imagine toi un boobu di fekk si encore cinq milliards. Ouais. les artistes dinañ am au moins benn souffle. mais pourquoi ils ne le signent pas ça pose problème des moo <coughs> tax artistes yi te seen revendication euh, dinañu revendiquer mais puisque amuñu rapport employeur employé rapport tutelle képp la. Mhm. ça parce que amuñu statut donc dafay nekk ay des des trucs yoo xamante ni. day mel ni dañ lay dimbali. waaw dañ lay dimbali. exactement c'est souvent dañuy ce qui divise même même les acteurs mm-hmm. parce que ñi fi nekk moom. ay mag fii ce sont les mêmes choses parce que la la culture c'est la réalité du terrain. Mm-hmm. c'est la réalité du terrain d'abord. et ce terrain là ñi ko xam nekkuñu ci bureau yi ñi ko xam aussi amuñu euh, comment dire encore accès ci centre de décision yi. donc mm-hmm. les acteurs culturels ne sont même pas à l'Assemblée ils sont partout dañuy toog rek alors euh, voilà l'État aussi su fekkente ni am na benn compréhension ci le rôle de l'acteur culturel la première des choses yoo xamante ni moom lay def moom mooy euh, même dans les représentations diplomatiques en mm-hmm. Europe pourquoi le ministère des Affaires étrangères n'envoie que ses hommes tu retrouves des enseignants comme conseillers culturels mm-hmm. alors qu'il y a assez d'animateurs culturels de conseils culturels qui sont là résultat l'État ne peut pas indi benn projet culturel boo xamante ni si biir Sénégal. Mm. projet bu fi ñëw c'est des c'est des privés. Mm. ok donc il faut que donc ñu changer euh, cela. permettre aussi à ce qu'il y la mobilité parce que artiste Sénégal dafa nekk un État souverain day signer ay convention ak ay coopération mais avec certains pays de l'Europe on des conventions yoo xamante ni de libre circulation mais la circulation des œuvres et celle des auteurs dafa nekk loo xamante ni c'est substitut faire de la réalité am na entre ñun ak France ak tous les pays <coughs> quoi la qui veut se déplacer pour man dem défendre ji œuvre am wala mën a honorer ji ko contrat ça pose problème mm-hmm. pose problème de mobilité mm-hmm. même au niveau des fois dama naan même dans les ambassades mm-hmm. ils ne nous respectent même pas. Parce que le statut, ils ont dit, nous, mettrons en place un fonds de soutien à la mobilité internationale des artistes. Mais pour cela, cette mobilité, ce qu'il y a à régler d'abord, c'est d'abord non seulement le statut, mais revoir les coopérations. Okay. Mm. Il faut revoir les coopérations parce que je ne peux pas comprendre qu'un artiste, il y a aussi beaucoup de voyages pour défendre ses œuvres. Mm-hmm. Euh, xaw ma loolu service de visa je sais pas tu payes là-bas fay fii et tu n'es pas sûr d'avoir ton visa et ton argent n'est pas remboursé mhm. imagine-toi et tu n'as pas de subvention ils ont environ 300 demandes comme s'il y avait un quota de visa à donner 300 demandes par jour hmm. mais ça fait plus de cinq milliards yoo xamante ne qu'ils encaissent mhm. te non remboursable mmh. alors que les représentations diplômes font partie du budget de leur pays hmm. e le peu qu'on a nous les su on ah, la joxul sa visa nan la delloo sa xaalis. tout à fait. suñ la joxul sa visa nan la delloo sa xaalis. y a trop y a trop de problèmes yoo xamante ne il faut que euh, les autorités toog discuter ak les acteurs culturels parce que ñun ñoo gën a xam suñu feebar ñun ñoo gën a xam ne. Mm-hmm. on doit bouger. kenn mënul tere un artiste bouger. Mm-hmm. le l' étranger su dikkee. <coughs> excusez-moi il n' a pas de problème. Mm-hmm. Iran comme ñu ñun suñu demee pour ñu mën a yëkkati benn son on est obligé de payer à la direction du travail temporaire. la ah, direction du travail temporaire. la DTTE tu es obligé de payer d'abord pour pouvoir t'exprimer fii ils viennent ils jouent ils s'en vont comme ça donc c'est autant de choses yoo xam ne des frustrations il ñu toog ak yéen wax leen foog ñu toog parce que comme ni ñuy wax rek ñun kenn mun noo gën a xam suñu bopp trop trop trop trop de problèmes. dans da ngay dem ba yootu ci ñenn ñi. exactement plus voyager ah. donc suñu demee tu tu produire là-bas pour après bàyyiwaat fa sa xaalis. voilà donc loolu yëpp su déggoo encore ñu ñëw même dans notre environnement la culture ban place la yore. dans dans la société. il faut que même su ngeen def journal télévisé sax vous allez partir de culture de société non de société d'économie de sport et de politique et cetera ba à dernier moment où les gens sont fatigués sont prêts à partir ñu ne culture mais il faut que cette place de la culture mhm. alors que la culture nag moom mooy li moi je dis que tous les ministères war nañu am le faut un conseil culturel mhm. parce qu'elle est transversale mhm. on ne peut faire sans la culture non je surtout ci loolu par rapport aux ministères qui doivent avoir des conseils culturels quand même. non c'est tous les euh, ministères le, le, euh, bon euh, c'est vrai que. Senghor disait que la culture est au début à la fin de tout. c'est ce qu'il disait parce que problème bi ñu am euh, là actuellement c'est compréhension bi ñu am ci culture moo moo xaw moo moo mmh. parce que boo gisee par exemple sport. Mmh. évolution bi dafa ànd ak une professionnel euh, professionnalisation mhm. da nga gis par exemple des universitaires qui travaillent que sur le sport mhm. des enseignants qui travaillent que sur le sport wala mhm. des opérateurs la jeunesse c'est pareil on a des des des, des, des inspecteurs de la jeunesse des de la jeunesse. Mm des des gens des spécialistes euh, de, mm -hmm. de la jeunesse mais la culture rien. c'est-à-dire que la définition de la culture. c'est ça le gros problème que on est analphabète absolument mm -hmm. on est analphabète donc c'est à l'aveuglette qu'on qu'on qu'on gère bon je, le dernier par exemple le ministre de la culture c'est un universitaire Sow mm-hmm. bon qui qui avait une approche absolument bon mais en tant qu'État on n'a pas une compréhension claire de la culture mm -hmm. et, et je pense que le problème yi muy posé mooy euh, bon prenons acte qu'il y a regroupement des trois domaines, mais prenons acte que c'est insuffisant. Mm-hmm. Parce que sport rek département la. jeunesse rek département mm-hmm. la. rek département la. Mm-hmm. mais le ministre délégué il faut faire pression pour qu'il euh, pour qu'il élabore une une euh, projet culturel. ce gouvernement-là n'a pas de projet culturel. donc il faut accepter que tous les acteurs je préfère les acteurs culturels gis nga la culture c'est pas nous on fait partie de la culture. bien les gens les médias. oui moi je voulais même venir à ça. de. la mhm. culture les traditionnalistes ils font partie. de la culture. donc la compréhension de la culture dañ dañ ko war a euh, waxtaanee. Mhm. ñu am. Euh, je dirais pas comme Senghor ah je répète trop Senghor. Mm -hmm. mais l'avantage Senghor c'est que culture daf ko collé ak civilisation. absolument. gis nga culture comme comme porte d'entrée dans une civilisation. Mm -hmm. c'est c'est ça qui va loin. c'est de dire aux Français dès le départ je suis indépendant ma culture elle est là je vais porter une civilisation à dimension mondiale. Mm-hmm. mais nous on a on, on a ce problème de compréhension notre culture là je pense que jar na ñu ñuy toog waxtaan ci mhm. bon maintenant euh, comme il a dit ça tu as neuf métiers neuf secteurs secteur dans un domaine mm -hmm. mais il faut que l'État comprenne quels sont quels sont ces secteurs mm mais soo xamee les secteurs mais mais maintenant il faut une politique de formation moi moi je suis pas d'accord qu'on laisse ces jeunes là faire que de la musique absolument j'ai j'ai aucune école de formation pour pour pour être musicien. Il a aucune euh, école Bon, on a l'école des arts, mais ouais. ça ne prend pas réellement en charge les jeunes. C'est l'école des arts qui nous enseigne Mozart. voilà. Par exemple, Mozart et Beethoven. Alors, voilà. ah oui, à Beethoven. On a Lalo Badramé et Samba Diabaresson. Oui, oui. Que tu, tu, tu, tu vois, ces questions-là. Bah, il faut qu'on ait un projet culturel. Hein? Mais projet culturel, lui, il a dit, je suis totalement d'accord. sa à dire qu'il n'y a les acteurs culturels qui peuvent porter ce projet. -là. Absolument. Il n'y a que eux. cest à domaine-là, loolu la ñuy dund bëgguñu leneen sax. maa ngi nii ñu ngi nii ñu moom la ñu bëgg. donc c'est un problème de de conception pour man suñu toogoon ba am une compréhension claire de des secteurs ak la la formation qu'il faut je parle de formation mais l'emploi. mm Qu'est-ce qui, qui est plus porteur... Il parlait, il parlait tout de suite d'employeurs. Ils n'ont pas un rapport d'employé, d'employeur. Qu'est-ce de création d'emplois que la culture. Hmm. Donc pour man il faut pousser, pousser. Bon, peut-être que dans six mois, mais qu'on ait un ministère de la culture. Mais c'est ça. C'est que, bon, je ne souhaite pas le changement du gouvernement, mais même si nous changeons le gouvernement, s'il y a le débat de fond on fait pression on fait avancer la réflexion xëy na président bi dinañu dinañ ko jot waxtaan ak moom ne rétablit une injustice en créant un ministère de la culture avec toutes ses compétences mais on va travailler sur cinq ans absolument mm -hmm. si on travaille sur un projet culturel sur cinq ans man honnêtement je me dis que gis nga euh, les artistes là pourquoi <laughs> je les respecte parce que si tu à l'étranger <coughs> repère étranger dans que ce soit en Afrique <coughs> en Europe repère bi c'est les acteurs culturels mm -hmm. mais la preuve du borom xaalis bi la preuve les, les deux les deux mots les plus utilisés par les Sénégalais et l'étranger c'est un teranga mm -hmm. hospitalité mm -hmm. la teranga et l'hospitalité et culturel d'abord. avant ah d'être quoi. culturel surtout c'est un problème culturel. <laughs> doyen. ça ne peux pas véhiculer la teranga sénégalaise. sans la culture sans pourtant en compte de euh, la culture. la culture. moi moi je terminerai sur euh, bon. Je, défends ma cause. C'est-à-dire que <laughs> les écrivains. les écrivains. cest une forme de communication. Mm-hmm. Gis nga y beaucoup de chercheurs qui travaille sur la communication mais pour nga xam dëgg dëkk dëgg-dëgg communication il faut il faut nga am une maîtrise de la culture mmh. parce que gis nga euh, une société toute sa vie c'est c'est des signes culturels lu lu ñu wax fii aada ni mhm. c'est des mhm. signes mhm. c'est des signes qui sont qui sont c'est c'est on se communique entre nous si tu es étranger mënoo xam hmm. communication tout à fait, interne hmm. tout à fait, hmm. tout à fait. donc pour moi je verrai vraiment si tout va bien que culture communication mën a ànd que que si on veut vraiment des euh, des acteurs culturels suñu àndee ak communication ils peuvent aller loin mmh. même mmh. dans le domaine yu ñuy wax ni intégration africaine euh, africaine, africaine. Mmh. Euh, moi je suis sûr que le, le, les acteurs culturels. Donc vous êtes d'accord que chaque ministère devrait avoir au moins un conseil culturel. Absolument. Non, même le président de la République, pour moi, c'est le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, les institutions de la République ne peuvent pas ne pas avoir de conseiller culturel. Pourquoi, bon Dieu, on voudrait qu'un journaliste soit systématiquement conseillé quelque part par l'acteur culturel. conseiller en communication l'acteur culturel ah, ah, l'acteur culturel sa capacité de communiquer n'a rien à voir avec un journaliste. du tout. le journaliste il est il sait les techniques. Mm il sait relayer. Mhm. mais pour libérer euh, la communication je pense que l'artiste est mieux d'ailleurs soo xoolee. mais mais foofu amuñu fa quelques limites parce que. nous sommes dans une administration où suñu suñu suñu texte mooy euh, euh, pour être un conseil technique à la présidence il faut être de la hiérarchie A et artistes yi d'habitude peut-être ils n'ont pas est-ce que du du du andi. non quand on parle d'acteurs culturels ce sont pas les artistes hein, ce oui, sont les écrivains y a les intellectuels oui, xam nga la xam nga le conseil culturel du président de la République doit être un principalement pour man un acteur culturel. pour man. absolument parce que moom moo ko war a jox les orientations nécessaires par rapport à cette question mm-hmm. là. mais maintenant bon l'acteur culturel peut être un écrivain. Mm-hmm. Mm-hmm. il peut être bi nga xam ne am na taxawaay bi parce que pour man pour ñu mën a régler la question de la culture il faut que responsabilité yi ñu jox leen ko. absolument man loolu laa gëm quoi man. pour man l'homme qui... c'est pas c'est pas la, formation académique. tu oui. sais euh, si tu par exemple les médias. le ceux qui sont dans dans l'audiovisuel. oui. amuñu. waaw c'est vrai bagage académique. Mhm. mais lu ñu xam ci photo photo photographie. c'est extraordinaire. gars yi xamuñu ko. absolument parce que ils l'ont. ils ont expérience ils c'est ça qu'il faut valoriser. c'est ça qu'il faut valoriser. c'est-à-dire la question des diplômes ñu jël se connaissent. Euh, mais jour am la ñu ko yow yaa yore suñu éditorial groupe. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. yoo ah jàngul lii et mais il avait une intelligence. Mm-hmm. que dafa bokk ak maam la suba keroog bi ñu nekk. dëgg la. c'est c'est un homme de culture. mais mais mais toutes les générations antérieures là demuñu université mais c'est de grands écrivains. donc problème bi c' est plutôt la valorisation c'est-à-dire que état bi comme il l'a dit je pense que c'est vrai c'est qu'on a un état trop élitiste mm-hmm. Mm-hmm. exact mm-hmm. trop gis li nga waxee ni hiérarchie il des gens qui pensent que hiérarchie c'est-à-dire que il faut avoir le bac le euh, alors que peuple bi nekkul foofu le peuple bi il est dans la maîtrise du savoir mm. te ñu génn ci affaire colonisation yooyu colonisation bi moo ñuy indil léew ñoom yëpp mais pourquoi la Chine réussit ah oui c'est ça la Chine compétence ils se battent autour des diplômes là léegi non le savoir-faire hmm. gis nga ñun ñun doyen loolu moo ñu tardé ñu au Sénégal ñun colonisation hmm. colonisation dañu ne dañ na mais dañu parce que nous quand bu dul danga am ko la jàppale dañ la naan ban diplôme nga am loolu lañ lay njëkk a laaj alors que tu as eu de l'expérience waaye il m'est arrivé une fois une journaliste m'a dit une grande journaliste mu ne Maria tu as tout hmm. mais va chercher le diplôme mais dans notre domaine fekk yow fi ngay toll fi ngay toll ci sa ci sa ci sa ci sa liggéey fi ngay toll ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa carrière hmm. mais doo fi nekk naan maa ngi dem di wutiwaat ay parce que tu sais que toi tu hmm. mais loolu noonu nag les gens te connaissent mais Ouais, voilà. Je pense qu'on peut faire la colonisation. Si tu vas chez les anglophones, hein? moi j'ai euh, eu une expérience en Allemagne, des journalistes wala des conseillers mu demuñu benn école damay ñëw di wax leen man lii laay jàng machin mes diplômes là ils mettent mes diplômes là à côté. et te demande ce tu sais faire. ñoom ci la ñuy jàng bind. pour nekk journaliste soo jaarul ci agence bi tu n'es pas journaliste da ngay trimer comme ñëpp. diplôme pas diplôme da ngay trimer. comme tout le monde an deux ans ngay gravé les anglophones ils valorisent la compétence. c'est ça mhm. moo taxit. Mhm. donc ñun suñu amoon intelligence mais y a des gens ils ont beaucoup de valeur beaucoup de connaissances mais nga yóbbu leen dans les cycles de formation. nga jox leen diplôme. diplôme bi mooy lan mooy que am nga expérience bi on t'a donné des modules. Mm -hmm. c'est ça qu'il faut combiner l'expérience le module de formation mm-hmm. module bi nag mën na nekk six mois un an et cetera suivant la jeunesse je crois que ñun il faut briser ce mythe français la le diplôme Amadou Ali Dieng il disait tout à que dañu bëri titre mm-hmm. waaw loolu moom dëgg la ci ñun la bokk parce que on croit trop au titre c'est ça j'ai ce diplôme même même avec les ministres hein, les gens te diront bëri na suñu ci wax bi ñu bi ñu bi ñu publier le le le le gouvernement. Hmm. les gens lan la jàng kii lan la def kii lan la def kii lan la def. kii lan la def mais Youssou Ndour lan la jàng. il a été ministre de la République mais absolument de la culture. et du tourisme. et du et du tourisme. et il a fait un excellent travail. <laughs> en tout cas daal war nañ briser li doyen wax. loolu noonu war nañ ko briser. bu te ñoo xam ne ñi animateurs yi aussi. Euh, grand Guissé yow rek yaa doon kaasal animateur ci ci acteur culturel lañ bokk de. bien sûr. Nous, on fait, on, on fait vivre les, les, Ce les... sont les métiers. <laughs> les, médias. les métiers de culture. Ouais. Vous pas ça. Mais on n'est pas reconnu. Ouais. Malheureusement. Il y a eu aussi des tentatives avec hein? beaucoup d'associations qui se sont formées, mais mm. les associations se sont essoufflées. Hmm. dem nañu ba finalement ñoom seen bopp ils ne comprennent plus léegi seen liggéey moom mooy dem di lijjanti seen i projet kii régler hmm. seen biir toog def seen alors que euh, quand on parle de la défense des intérêts matériels et moraux des mm. travailleurs de tel métier. Mm-hmm. ce combat doit être un con un combat syndical. Mm-hmm. forcément mais ils se sont essoufflés. heureusement qu'il y a le soubassement d'une prochaine plateforme. qui qui mm. qui qui de se au moins pour euh, être ce qu'on appelle une plateforme. Mm-hmm. Euh, de proposition. une plateforme où des intellectuels. pour parler de leurs préoccupations parce que vraiment on ne comprend pas. Mmh. La loi sur la copie privée, la loi, cette loi a été ratifiée en 1961. Ah oui. L'année de naissance du président Macky qui président Malem Yoon. L'abrogation de pose problème. La promulgation. C'est que c'est en fait ñun loolu dañ ci problème parce la copie privée et le de l'artiste. Oui. la SODAV donc qui a été installée et depuis Et jusqu'à présent, le statut de l'artiste n'est pas encore effectif, ni la copie privée, qui sont dans la même euh, loi. Euh, man doyen j'ai j'ai un quand même parce que boo boo boo dégloo gisee fen bon boo dellu si waatee tuuti après y avait BSDA après SODAV ce sont les noms qui changent mais le contenu est toujours le même y a rien de nouveau y a rien de nouveau xam nga lu ñuy def ñoom pour ñoom la culture est-ce que c'est pas une question de volonté politique non non c'est une question de volonté politique. ba pare comprendre exactement ce que c'est que la culture parce que rek ñoom lu leen di intéressé mooy par exemple je viens je prends un artiste. Hmm. j'ai un programme je prends un artiste ma fay ko wala ma ma lijjanti ko pour yow yaa ngi dundal culture pour yow yaa ngi dundal culture ah. et loolu du pire que cela pire que cela si je hmm. vous dis que en matière de campagne électorale. quel que soit. Euh, oui les droits d'auteur aucun aucun parti n'a encore payé. ah oui. Ah, je voulais vraiment en venir à ça parce que tous les candidats ku ci nekk à part ñenn ñi nga xam ne peut-être. c'est un préalable tu pas le droit. ils n'ont pas le droit de commencer sans d'abord s'acquitter du paiement au du droit d'auteur c'est ils n'ont pas le droit. Ils sont tous partis à Copa, ils ont, gagné, d'autres ont perdu, et c'est ça, et jusqu'à présent. Et puis ils ont Aucun waaw kay euh. <laughs> on utilise les les les les chansons les artistes dugal ko ci ci ci les Dalton et autres là. c'est qu'en fait dañu leen di sonalo sonalo sonal on les épuise. Bien on épuise les acteurs culturels. Hein, on les cite bu dee écrivain nga on te cite parfois bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee artiste bi nga musicien nga woykat nga ñu jël la bu fekkee da nga def son bu neex ñu jël sa son reprendre ko nu mu leen neexee. ci campagne bi on a vu beaucoup de chansons yoo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko reprendre. Euh, de la sonorisation. ouais teg euh, des œuvres bon c'est pas parce que diw a chanté euh, Macky ou diw a chanté Diomaye que que que non mais le chanteur là il a chanté à partir. de de de la création d'autres. Mm-hmm. des artistes qui ont joué des qui peuvent ne pas. tenir compte du fait de leur appartenance. et c'est ouais, y a aussi de la, celle de la production. Mm -hmm. Et tout ça génère mm -hmm. des ressources. Hein? Mm -hmm. Et mm-hmm. ça, il, il, faut le faire. Aucun de... parti politique ne s'est acquitté de ces droits-là. Mm-hmm. Et on va bientôt aller vers les les cantonales et cetera sera toujours en campagne. la même chose la même chose. bu par bu ko defee ñu jël ay groupe groupe bu nekk dem bind sa lettre bu ko ah. defee ñu jël ay groupe boole leen ci ñi nga xam ne ñoo leen faraloon. ñoom la ñuy àndal ñoom la ñuy kii après non c' est c' est dommage en fait mais euh, AMS ça existe toujours. ça existe toujours ça existe toujours. mais c'était avec qui encore kan moo fa nekk léegi président. léegi Daniel Gomes la. Euh, Daniel Gomes AMS c' l' association. de métiers de la musique non dama se sont essoufflées. non oui c'est vrai donc ils ont ils ont ils, ah, ils ont d'autres. les animateurs voilà. il y avait mais mais, mais parce que parce que amuñu interlocuteur. mais c'est ça mais est-ce que est-ce que est-ce venir oui, vers nous mais vous devez pas vous organiser aussi parce aussi dafa am loo xamante ni organisation peut-être mooy mën a régler certaines questions. dégg lu mu les associations se sont essoufflées. dégg lu mu wax dégg ma laaj ko na AMS mu ngi fi ñu jël AMS def ko def ko l'association des ils ont pris le même sigle. dama ni il y a eu toujours des combats qui ont été menés. décibel c'était décibel tous les animateurs. kii moo ñu coiffé woon moo ñu doon jàpp tous les animateurs étaient dans le truc dans le décibel. et ils ils se sont essoufflés même pas deux ans. ils étaient menacés par même de les patrons de presse. ah oui ah vous voulez vous syndiquer là maintenant euh, ce qu'ils ne comprennent pas c'est que loolu l'animateur qui paye celui qui présente le journal parce que viennent les sponsors. Tout à fait. Et c'est ce qui fait rentrer beaucoup d'argent. Mm. Et c'est cet argent-là qui permet de payer les techniciens. dañuy ragal animateurs yi yeewu léegi bu ñu ragalee animateurs yi yeewu dañuy jël animateur bu nekk rek am lu ñu la kii lu ñu la neexalee. Mm. il faut ñu xam seen bopp mais damay wax comme je dis souvent euh, animateurs yi aussi nañu gën a dem formé wu formation ça veut pas dire dem fay ay xaalis ak dem ay kii mais dans quand tu es dans un métier da nga war a xam ñi nga xam ne ñoo coiffé métier boobu. Mm-hmm. ñoom ñoo la ci jiitu. ñoo la ko gën a xam c'est pas juste l'animateur qui est la avec un micro c'est Guissé Pène c'est doyen Mamadou Sy Albert c'est Mikayel Souma c'est c'est c'est personne c'est telle personne c'est c'est Babacar Mbaye Ndaak ñooñu mm-hmm. ñoo ñoo ñoo li nga xam ne moo di culture tu vas pas être animateur sans pour autant nga am une bonne culture générale mm-hmm. sinon toi-même tu vas tu vas pas être pris au sérieux donc bu boobaa yow après da ngay dem nii rek da ngay dem nii tu as envie tu as envie tu am na ñoo xam ne tey jii même boo amul diplôme tu les appelles mais ils viennent parce que xam nañu yow yaay kan mais bu fekkee da nga toog foofu juste pour nekk un poseur de disque comme tu s'appelle nous disait un poseur de disque disque wala nga nekk fa koo xam ne di ko may di ko may di ko may wala comme ils font maintenant animateur bi day woyaan rek mm, mais comment tu veux tu, tu, tu veux que les gens te au sérieux c'est ça le problème wala parfois ñu ñu itam ci suñu métier ni journalistes di wax naan dañuy assainir seen milieu yi aussi mënuñu assainir milieu mais ku ci nekk xam nga kan mooy kan ci nekk xam nga kan mooy kan tu peux pas te dire tu es animateur ba pare nga nekk fi nag di maye dédicace rek. waaw mais je bu ñu la laajee lu xew ci dëkk bi sax nga ne xaw ma lu xew. je vais bientôt rejoindre. Euh, doyen euh, doyen parce que je viens de euh, ah, de la musique nag mm-hmm. kenn mënuloo gën a xam ci lu bopp. Mm-hmm. donc j'ai Euh, benn étude boo xam ne plus de 500 pages. Ouais. sur l'historique de la musique depuis la base. Okay. les différentes registres folklore su yàlla en Casamance su dans le PCAM un peu partout ba ci cette nouvelle génération. donc jël euh, nga leen on attend de voir kañ lay ah génn. pour bientôt parce que ça a été édité par les éditions Kala que vous hmm. Hmm, de l'université. Hmm. Euh, avec le professeur Babacar Mbaye Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà donc on attend de non non non c'est. on espère que doyen. on va on va le 21 le 21 ah, séance de dédicace ah, oui. mais de façon sera disponible parce que. ça a été euh, de la musique quoi. le 21 juin la koy def quoi. Euh, ba euh, yaa y a la question des. des artistes peintres. doo wax no yéen dinaa ci wax après présentateur. waaw dinaa wax ci présentateur. parce que yéen sax dañ leen war a protéger xam lu ñu woon ñu protéger leneen lu ma naqari fii laa koy jooyee. ci télé bi fii. <laughs> doyen doyen. nous sommes des acteurs ah. culturels. beneen problème boo am beneen problème bi Birama xam naa ne daam bi daal dangay ngay waaru ko mais doyen ñun animateurs yi bu ñu bu ñu kenn ñu jox ñu présenter journal par exemple nous sommes des présentateurs. te pourtant journaliste yi bàyyi leen suñu plateau yi ngeen di jël bàyyi leen suñu contrat yi ngeen di jël dem di animer ay soirée absolument c'est pas pour les journalistes ouais, ouais. je suis désolé c'est pour les pré c'est pour les, pour les présentateurs les animateurs ñoo ko moom c'est pour les animateurs il faut que les journalistes arrêtent ça neexuñu nañ ñu bàyyi ñu lekk suñu xaalis ñu ni sax ah doyen on veut vivre de notre métier. c'est notre ñun ñoo ko moom suñu domaine la ñun on va pas parce que Sénégal on n'a pas cette culture bi nga xam ne moom la tubaab yi am ils prennent un présentateur ñu jox la tu présentes le journal. entre un présentateur et un journaliste du benn. Mhm. mais ñun bu ñu présenté woon journal tey nga yéegi ñu ne la lu animateur bi di présenté journal ban diplôme la am pour présenter journal alors que tu es un présentateur ñoom il se permet nañ ñu ko bàyyee en doyen. non non mais je suis totalement totalement d'accord <laughs> c'est c'est c'est la même chose pour les hommes politiques les hommes politiques pendant les campagnes bah sans la musique ils peuvent. Euh, absolument l'élection ne veut absolument mm-hmm. mais ils utilisent euh, les musiciens. Mm -hmm. bah, après euh, ils pensent pas qu'ils doivent payer quelque chose. Absolument. pourtant ils sont prêts à à mettre de caution. Absolument. Mm-hmm. ils sont prêts à ouais. avoir un milliard dans le budget de campagne. Absolument. Mhm. Mais duñu sóoraale mu la partie euh, artistique. Absolument, la partie. Donc là, il y a un problème la, la partie de dañ leen di may dañ leen di may rek waaw droit d'auteur. Ouais. Il y a les droits d'auteur. C'est c'est comme si euh, même si tu chantes un un un, un politicien. Imagine toi <laughs> ñu nekk en campagne ma ma def plagiat ma reprendre ce projet de programme. waaw te bëri na fi nag nga ma yóbbu ci yoon. Mhm. Ah, c'est la même chose pour la musique. C'est ce qu'ils ont fait, pendant la campagne. Ils ont plagié beaucoup de morceaux. Absolument. yoo xam ne ay yeneen nit a euh, les acteurs politiques en tout cas ñi nga xam ne ils aspirent à être euh, président ou ministre ou député mais il faut que ñu bàyyi xel quand même a un d'auteur. Mmh. que que c'est pas gratuit. que c'est mmh. quelqu'un qui a travaillé peut-être des années et des années. def production. Mm -hmm. pour véhiculer la culture mais la culture aussi elle elle, elle a un c'est ça en la même chose pour les animateurs. Ah, les les waxal waay waxal waay doyen les hommes des médias ils n'ont pas de culture médiatique en réalité. Mm-hmm. c'est des journalistes qui créent leur groupe de presse. waaw ñoom c'est la partie presse qui les intéresse. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu la ñu xam. mais xamuñu dara ci l'animation. ah tu as un journal à huit heures un jour treize heures huit heures bon peut-être tu as euh, maximum deux heures. de journal. deux heures. mais deux heures sur vingt-quatre heures c'est quoi ah, tout à il faut que l'animateur vienne bah, il faut que l'animateur soit là vingt ah, heures vingt heures pour faire vivre hein absolument mais vingt heures d'animation ah, mais mënoo yaakaar ni quand même c'est gratuit quand mm-hmm. même ou bien que c'est pas un métier ouais. tu ouvres à à six heures du matin jusqu'à tu as Aïcha à six heures du matin fii à 7 TV ouais. Aïcha elle vient à sept heures elle est animatrice elle n'est pas c'est à 13h que le heureusement pour nous que 7TV au moins ils reconnaissent les animateurs kooku moom je le dis 7TV fii même ñu ruusuloo jël animateur bi teg ko ne ko présente par exemple l'avant-première de la mi-journée parce que ku nekk day xool li nga xam ne moom mooy say capacité mu jéem la teg foofu mais si si tout le monde faisait ça mais animateur dinañ dem góorgóorlu waat c'est ça c'est-à-dire ñi nga xam ne ñooy les patrons bon amuñu culture boobu ah il faut que les patrons de presse ñu ils ont besoin de journalistes c'est vrai mhm. mais ils ont besoin d'animateurs tout à il faut organiser l'animation mhm. c'est ça c'est ça une animation c'est ça qui détermine le d'audience mhm. si s'il n'y a pas la forme, s'il n'y a pas le, de a pas de vie, mm-hmm. bah, personne ne va absolument, la, la, télé ou la radio. Mm-hmm. Je pense qu'à ce niveau-là, les patrons là une, grosse euh, responsabilité. Mhm. C'est la même chose pour les pour les acteurs culturels qu'on fait intervenir. Hein. Mhm. les journalistes qui me répondent. Les, <laughs> journalistes, nous on a entendu ton cri de cœur. <laughs> c'est comme euh, les les, euh, les artistes. qui interviennent euh, dans les émissions là. je pense que ça il faut assainir ça quand dit que animation c'est un métier. Mm-hmm. Donc les émissions phares il faut prendre les gens qui ont du métier. Mm -hmm. C'est ça. Il faut prendre les gens qui ont du métier. Là, le gars qui c'est la présentatrice, qui animateur, qui journaliste, qui c'est un acteur politique. mais ça s'organise mm. le les tu vas bon malheureusement je donne toujours l'exemple de la France les Français dañu aay ci ci ci management mm-hmm. Mm-hmm. c'est ça en mm-hmm. bu ñu la waxee émission c'est une heure bu ñu la waxee telle heure telle heure c'est normé effectivement avec une équipe avec des, des, équipes toute une journée, ah, Chaque émission avec une équipe. Il aussi peut-être avoir des gens qui, travaillent sur les programmes. Mhm. Parce que le programme aussi, il est réfléchi. Mm le programme n'est pas seulement de diffuser, c'est pas, c'est pas, c'est pas au remplissage. programme maintenant Non, on a des de programme, mais c'est juste des directeurs qui vont venir pour, sélectionner les ou quoi, le programme <laughs> qui doit passer. Mais un directeur de programme ah, qui ne, sait pas si c'est cette, cette musique est saturée ou bien s'il y a des fausses notes, etc., on met tout. Ou bien s'ils si, si, si, si ils ont droit de diffuser. C'est que dafa bëri ay affaire ay paramètres yoo xam ne dañ ko war a jël en compte. Mais il que les télé payent les droits d'auteur quand même. C'est ça euh, ça c'est une question. ñoom ak politiciens yooyu. déet waaye itam yow tamit gisee bu toog kon ñun dañuy fay droit d'auteur mais ñun sax ñun dañoo noppal nit ñun waa 7TV ñun dañoo noppal nit ñun dañ ñuy xas sax parfois nee nañ ñu li ñuy teg musique bëriwul dugg na fi génn fii. loolu la ñuy wax artiste loolu la ñuy wax parce que da fay ñun moom dañuy fay yeneen télé yi fayu ñu mais ñun dañuy fay <laughs> non non non ça c'est c'est le grand problème mais xam nga comme on dit rek mm. lu naan rek euh, bor la lu mu yàgg yàgg dañ leen ko fay mais nag quand même ñu góorgóorlu tuuti parce que kii ñëw par exemple def la promotion de son de son single par exemple def benn spot publicitaire. Mm-hmm. day koy fay. Mm-hmm. day fay fay mu sax te alors que spot bi muy def. alors jàmbur la ciy jël dugalaat ko. léegi kooku du fay ko mais c'est c'est c'est complexe. léegi léegi loolu nga ciy fayee wax dëgg yàlla. c'est très complexe di tax <coughs> BSDA da leen yombaloon ba SODAV ñëw encore nekk dans la même gën a yombal affaire histoire de forfait. alors que li loi bi wax. Mm-hmm. suñu ko tegoon. Hmm? nit moo ni moo ni arrangé. parce que c'est soit 6,5 pour cent du budget global de la société ou 4,5 pour cent sur les recettes publicitaires. Mmh. Là, euh, je donne l'exemple par exemple de d'un organe comme la RTS mi joxe aujourd'hui 25 millions soo xoolee soit ci budget wala ci recettes publicitaires ce serait 300 à 350 millions par an. waaw waaw c'est peu par rapport à. c'est peu par rapport à lu ñuy lu ñuy am. ñu ngi nuyu DJ Taf. bu baax a baax a baax a baax. c'est autant de problèmes yoo xam ne moo tax mm. il faut que les nouvelles autorités toog ak acteurs culturels. tout à fait parce que on a fait. beaucoup laaj leen directement man c'est pas un problème de. des assises de la culture des jeux. non c'est pas important yooyu. Hmm. yàq kii la c'est pas important. les séminaires et la là. y a eu ce le plan de relance du secteur de la hmm. culture. Ouais. Ouais. on avait travaillé hmm. les documents sont ko jël réactualiser ko. toog waxtaan ak nit ñi. et puis toogal nit ñi war a toogal. aussi bu nu jox garab. boo xamante ni xëy na peut-être mënul faj li ñuy metti parce que leneen la ñuy metti. kenn mënuloo gën a faj keneen ki bi nga jox ko garabu dënn buy metti. dafay xaw a doy waar daal DJ Taf depuis Padoua ñu ngi koy nuyu mu ne ma vous avez raison il faut que les animateurs culturels reviennent sur les télévisions nee il faut ñu dellu si waat. mais ñun il que que la 7TV mais il faut aller vers euh, suñ ko defee. parce que mooy mooy li ñu doon rek le nouveau gouvernement am na ay réformes yu bari yu mu war def pouvoir régler parce que y trop de frustration par rapport à beaucoup d'acteurs. y a trop de frustration mooy li ma doon wax rek mooy les acteurs peintres là yi ñuy gis ci murs yi ci ci ci ci en ñuy ñuy foofu mm-hmm. y a de choses à parfaire dans ce mm-hmm. pays là mm-hmm. des réformes à faire pour pour éviter les frustrations maintenant nag day fekk ñu jël secteur bi ñu ñu jël yenn secteur yi ñu jox leen ñi nga xam ni ñu boole leen ñu boole ci ñi nga xam ni ñu boole leen ci ñu boole ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ko miin xam ci pour pouvoir euh, def réforme yooyu plan de relance boobu c'est bon il faut réactualiser pour que nit ñi mën ci taxaw les animateurs télé et radio et autres les animateurs culturels on les appelle les animateurs culturels suñ leen deeloo leen télé yi dinañ gagner beaucoup plus que li ñu waroon gagner c'est-à-dire les médias dinañ gagner beaucoup plus que li ñu waroon gagner mhm. parce que y a ñoom la ñu ñoom la sénégalais di toppan les animateurs culturels qui sont dans les médias ñooy nourrir télé yi voilà donc mhm. donc moom moo tax quoi donc il faut que ñu apporter réforme yooyu mais nag il faudrait que yéen aussi que vous puissiez vous organiser pour qu'on puisse pour ñu éviter di leen léser quoi les animateurs. moom bu xam nga xam nga looy liggéey rek anam. Hmm. moom la ñuy wax looy liggéey rek da nga am fulla waxuma sax fulla bi du xeex du xuloo du xastante mais da ngay fexe ba la ngay liggéey nang ca nañ la ca ràññee. ah décibel ngi fi. décibel mu ngi fi pour les animateurs. ñu bëri tey ji boo leen woowee ñu animateur am na ñu animateur boo dajee ak ñoom sax boo leen ne diw Michael Souma ñu ne la xamuma ko hmm. alors que tu es dans ce métier là loolu dama koy jàmbat tout temps quand tu es dans un da ngay xam ñi nga xam ne ñooy say aînés ñi nga xam ne ñoom tey jii bu journée de la rajo ñëwee on invite Michael Souma ba France hmm. c'est vrai qu'on l'invite parce qu'il est reconnu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tey jii par exemple y a quelque y a Tafa qui me liir tamit ci la bokk. raison pour laquelle loolu la ngay indi livre doyen. Adama Fall yow li nga mel ñaaw na trop lu tax indi woo livre doyen. en tout cas daal su cri du suñu cri du cœur daal lancé nañu ko ba pare mais quand même même booy lancé cri du cœur aussi day am loo xam ne moom ngay teg ci table bi mooy que ne ñun itam qu'on aille chercher qu'on qu'on essaie d'avoir une bonne culture générale. tout à fait. kon ça dépend des arguments pour ñu mën aussi di ñu jox place yi nga xam ne parce que boo revendiquer dara aussi fexe ba bu ñu la fa tegee nga mën koo def. tout à fait n'est-ce pas a rusloo ñoom gisee penam yooyu. li la si temps bi bëreetul doyen euh, xam naa bu fekkee dafa mu looy conclure rek. avec wala avec la journée du livre aussi ah. peut-être un mot c'est que bon à l'adresse quand même de la nouvelle majorité. c'est mm. s'ils vraiment changer paradigme. il faut passer par la culture. Absolument. Mhm. Que, que vraiment su fekkente réellement ils veulent euh, euh, la souveraineté politique économique euh, la résilience pour moi le, le vecteur premier c'est la la culture. Mm -hmm. et, et là peut-être les acteurs culturels bah, il faut qu'ils euh, qu'ils se fassent entendre comme Adama l'a dit. Mm -hmm. que que bon c'est des novices ils ont peut-être raison de, de, de, rassembler dans le même département trois, trois, trois activités. Mmh. Mais il faut faire pression du lobbying. Mmh. Mmh. Il mm-hmm. faut faire le département ministère de la Culture. Mm-hmm. Et, et, faire, moi je suis et certain que lu ñu mën am ci njëriñ ñu fii ak cinq ans à partir de la culture. Mm-hmm. bari bari na bari na boo boo demee ci sport bi boo demee ci sport bi tu as besoin des acteurs culturels. boole métier sport tu as besoin des acteurs culturels boole la jeunesse la culture et la jeunesse mënuñu ko mënuñu ko dispatcher c'est pas possible bu culture bi nag da ngeen ko ci dugal jéem a xool naka ngeen di def pour parce que am na nuñ ah, y a des pour pour pour ñu mën a associé tout ça mais quand même ni gisee fen wax mooy dëgg li doyen wax mooy dëgg il faut boo bëggee liggéey benn secteur da ngay jël ñi nekk ci secteur bi nga waxtaan ak ñoom te ñu nekk secteur bi du du du woykat yi kese du comédiens yi kese du du du kii y a les animateurs culturels y a y les consultants les conseillers ñi nga xam ne tey mënuloo wax culture génne leen ci y a les tailleurs c'est des artistes ñoom lañ dem ci artisanat graaw non les stylistes les stylistes les stylistes modélistes ak les mannequins les mm. mannequins boobu ah <laughs> voyez mais dañu dem ba à la limite dañu dem ba secteur yëpp tous les secteurs sont devenus informels ci <laughs> culture parce que ku nekk da ngay da ngay jéem a demal sa bopp tu man man mannequin laa fan nga bokk nga ne man nekkuma ci benn nekkuma ci benn agence donc toi tu yooyu après parfois tu n'es pas protégé donc nañ ñu xoolaat bu baax a baax et on espère que euh, madame Khady Diène Gaye ministre de la de la sport de la jeunesse et de la culture ah dina am dina dinañu dégg xam ne am na ñu fi nekk ñoo xam ne loolu rek la ñuy dundee que ñu boole leen ñàkk leen ci boole c'est leur passion c'est leur métier gouvernement bu ñëw sax envie de gouvernement bu ñoo itam du tax bu ñu ànd ak yow ñu ñàkk a ànd ak yow aussi du tee ñu doxal seen métier. donc mu ngi noonu. quand je vais à l'étranger hmm. euh, pour des missions yoo xamante ni soit pour ay conférence wala dara mais bien reçu comme mais ici à Dakar. <laughs> tu passes inaperçu. inaperçu daanaka ñu ñu ñu teg la place de la culture. suñu ko tegoon place de la culture ñu mën a. xam kon ñun tekki nañ bu yàgg. Ah tekki nañ bu yàgg merci. gisee merci. mais mm. écoute euh, xanaa si noonu di remercier encore di mm. remercier doyen Albert. Mm-hmm. si ak euh, Adama. mon mm-hmm. frère. Euh, leen daal laa xam ne naa ko ci yow c'est vrai que. Mm-hmm. on un nouveau gouvernement. bi ñu installé léegi yàggul. parce que aussi il faut que les Sénégalais sachent patienter. Mmh. parce que patience moom. Mmh. Euh, on est obligé parce que y a tellement de choses yoo xamante ni à mettre en place tout ne peut pas se résoudre en l'espace de six mois un an. tout benn période boo xamante ni. Mmh. foog mu ne ñu nekk daan des dans des problèmes dans des difficultés. dans les réajustements et cetera. donc on l'accorde euh, ak lu mu ci mën doon aussi culture bi moom. nañ ci nañ ci gën a bàyyi xel. nañ ñu bàyyi xel daal dani mu Serigne Saliou mu ah, ngi lay nuyu. dani mu Serigne Saliou mu ngi lay nuyu dani nee na mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi koy nuyu c'est mon frère. c'est mon ami sama mbokk taal bi ñu ngi koy ziar merci encore grand Kissé. merci beaucoup et on espère que beneen yoon bu ñu ñëwaat di toog fii dina fekk ñu woo ñu toog waxtaan ak ñun. incha allah ñu di wax ne il faut que ñu ñu ñu yuuxu. bu ñu fàttee itam ne kii ki lañ bokk de les kii nu mu tudd la griots. waay waay boo leen ci boolewul ñoom Saala Bigué. Mm. les communicateurs traditionnels. ci la ñu bokk aha ah, les griots. <laughs> doyen merci beaucoup. à demain merci à demain incha à demain et ñu ngi naan Abdou Aziz nay bàyyi di tardé nay teel a toog. waaw tey dafa naaje tey dafa naaje na bàyyi tardé. Mm. on se donne merci merci à Momar ñu ngi koy sant bu di ko gërëm journaliste fii ci 7TV merci euh, ni ma koy waxee saa su ne kenn mënul dem bàyyi sa morom te une chaîne ku nekk dafay jàpp fii bu ko defee affaire yi dox dañu jàppalante te ku nekk jox nit cëram ku bëgg jox la sa cër nag da ngay jox sa bopp cër ba noppi. noonu laa ko mën a waxee kon caay caayu merci à la régie rendez-vous demain 11h allah.